lànk ba tëdd sa naaj wa ne bokkuñu ci dialogue bi nga xam ne woote nañ ko ci réew mi te njiitu mi di président Macky Sall woote ko mooy njiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na kenn tudd ci dialogue bi ndax bokkul ci dialogue bi tey bokku ci ëllëg ba muy daaneel na Aminata Touré jël kàddu gi moom Mimi Touré mi fi nekkoon premier ministre bu Sénégal moom tim nee na bokkul ci dialogue bi tey bokku ci ëllëg moom Aminata Touré bi bi ñu ko dil dialogue bi journal bi nee na li ci doy waar te Aminata Touré wax ko mooy Antoine Diome nga xam ne moo nekkoon créé tëj Karim Wade moo nekk jamono ji kii rataxal diggante Macky Sall ak waa PDS maanaam mooy facilitateur bi yéen kaay gi di réew mi ko di jeexee di ñu xibaar nan ñu en tout cas li de Sall lii nga xam ne Aminata Touré wax na ko maanaam neexut a wedde ndax bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar maître Abdoulaye Wade maanaam loxo moo nekk ci ginnaaw dialogue bi loolee sax tax na Idrissa Seck gaaw daal di génn ndax Idrissa Seck journal bi nee na dafa yëg ne Macky ma ngi négocier ak Abdoulaye Abdoulaye Wade bi Idrissa Seck amee xibaar yooyee si la gaaw daw génn ndax Idrissa Seck ak ñi nga xam ne ñooy PDS xam ngeen ne mënuñoo jaaroo ab taal ndax barki démboo Njaay bi Idrissa Seck di def li nga xam ne mooy conférence de presse am bi gis nañu kàddu yi nga xam ne yekk na ko Abdoulaye Wade ak ki nga xam ne mooy Karim Wade journal bi di réew mi quotidien Khalifa Ababacar Sall nee na en tout cas li am ba des Sall ak li gudd gàtt maanaam dialogue munta ñàkk Khalifa Sall nee na dialogue munta ñàkk Ousmane Sonko ci biir journal bi na ko man de dialogue guuma tey dialogue guuma ëllëg Khalifa moom na ko Sonko Sonko man damay dialoguer journal bi délibération njiitul Pastef di Ousmane Sonko nee na dialogue bi li nga xam ne moo ko tax a jóg maanaam mooy éliminer ma fexe ba ma bañ a bokk ci élection présidentielle 2024 loolee rek donc moo tax a jóg li nga xam ne mooy dialogue bi kàddu yi Ousmane Sonko la ma ngi ci journal bi délibération yéen a kaay gi di Vox Populi ñu fekkaat fa ay kàddoom moom Ousmane Sonko daan nay wax ne dialogue politique bi ngir nag dëggal ngir valider candidature Macky Sall moo ko tax a jóg ak éliminer ma yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien ak Vox Populi ak bés bi Khalifa Khalifa Ababacar Sall nee bi daal en moom nee na munut a ñàkk te nag l'essentiel moom Khalifa Sall na bokk rek Khalifa Sall moom daal nee bokk ci élection présidentielle yi rek Khalifa Sall nee na bu ñu ko am na see na na bokk rek ci élection na bu ñu modifié code électoral bi ngir mu mën a bokk loolee tamit baax na maanaam Khalifa moom jamono jii daal maanaam fu ñu ko jaarale ba mën bokk rek moom nee na baax na yéen a kaay gi da la mandat ndaw ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi di grand parti bu Malick Gakou ñoom nag nee ñu ko Malick Gakou sa tànk bu mu jaar si dialogue bi journal bi di Sud Quotidien Aminata Touré nee na lii nga xamante ni mooy dialogue bi président Macky Sall woote li nga xam ne moo ko wundu te tax koo jóg mooy xàjjatle diviser ñi nga xam ne ñooy kujje gi yéen kaay gii di bés bi nee na Macky Sall kay jamono ji andi na ak féewaloo ci biir coalition Yewwi Askan Wi bu ñu waxantee dëgg yéen kaay gii di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko ni ki démb yëkkate na ay kàddu waaye nag yàkk na musiba ak mbelengaan Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoom la ànd la moom Ousmane Sonko nee na ñeenti at jël justice bi di ko instrumentaliser di dal sama kaw ñeenti at ngi nii maanaam samay àq ak samay yelleef samay droit ñu daal di koy bafuwee maanaam daal di koy saax-saaxe caxte-caxte ko a affecté ma tëj gu diisa moo tax ñu daal leen ma ngi wër ay attekat yoo xam ne danañu mën nangoo daan ay daan yu metti ngir nag ma mañ a bokk ci élection présidentielle 2024 kàddu Ousmane Sonko la du samay kàddu damay nettale Ousmane Sonko nee na nag analyse yi nga xamante ni def na ko ci lu jëm ci tentative d'assassinat bi moom daf koy dëggal na résultat yi dafa wane ne dañu maa bëggoon a faat yéen a kaay gi de libération Ousmane Sonko nag nay wax ne am na loo xam ne duutuma ko nangooti ñuy jël justice di daal sama kawa Ousmane Sonko nee na tappale yooye nag nañ ma ci génne jamono ji kay journal bi nee na Ousmane Sonko li mu a a kaay gi plainte mooma porte plainte porte plainte journaliste Babacar Touré Ousmane Sonko nee ci ab audio nee moom nappal ci boppam daan nay xam le ni ministre de la justice ak ministre de l'intérieur maanaam ñoo ko sant na ko porter plainte Babacar Touré porter plainte Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag nee na Babacar Touré danañu ko tëj lu toll si juróom benn weeri kaso amande ko lu toll ci vingt cinq millions man mii Ousmane Sonko sama digganteek Frédéric Napel danañu ma tëj lu toll ci benn at amande ma lu toll ci cinq cent a kaay Doudou Ka moom nag nee na Ousmane Sonko jamono ji nag teeral na ginnaaw bi nga xam ne jamono ji ma ngi joxar bi baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñooy force de défense et de sécurité yi lu jëm ci wàllum tentative d'assassinat Ousmane Sonko teeral na maanaam yegg na sa njobbaxtal ga bu ñu sukkandikoo ci Doudou Ka ma ngi direct news nee na nit ku mel ni Ousmane Sonko jamono ji sax maanaam wuru fee nekk di jéem a laaj réew mi ngir gouverner ko yéen kaay gi di réew mi ko de ndax justice bi jamono ji Matar Ba maara day taal yi moom maître Mame Adama Gueye wax ci corruption bi nga xam ne moo am ci justice bii nekk ci biir réew mi moom maître daan nay wax ne problème yi nga xam ne moo am ci wàllum yoon ci Sénégal doy na waar génn xeetu doy goo xam ne maara day taal yi moom maître daan nay wax ne am na magistrat yoo xam ne jege wuñ sax bay indépendant pression bi ñu leen teg du exécutif bi leen ko teg de waaye xaalis xaalis bi xaalis ak kilifa diine yi moo tax indépendant wu waaye nag il faut ñu amal ay réforme yéen a kaay gii de la tribune xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum dépense des comptes daat nay gis nag ay léexoora daan nay épinglé ministère des finances yéen kaay gi de libération nee na benn fan ci weeru mai fête du travail Macky Sall démb wax na lu leer ñi nga xam ne nag ñooy syndicalistes yi nee na leen lu jëm ci wàllum yokk salaire moom bu leen ko fi wax jamono ji du ñu yokk benn salaire réew mi quotidien nee na CNTS FC a ñoom nag jamono ji li ñuy sàkk mooy caisse de sécurité ñu daal di koy audité yéen kaay gi di sunu làmb xëy di ñu xibaar naan ñu combat Queens Lac Rose dimanche génn la woon nag Queens moo ko daana bii moo nekk ñeenteelu def